Arrière, Gracias.

lii lépp la. Anday. Asalaamaaleykum. ini sendiri dong gus gus gus gus Merci. Maintenant, c'est secrétaire. Thank you. waaw ah, maamam xarit maamam. waaw loolu am na. Amara Seck Amara Seck nañu woowee waxal bu baax. Amara Seck nañu woowee papaam. dafa fi ba mu neex. na ñëpp jub nag. nii crime. taxawal taxawal. ah Khadija bi ñu ngi koy Khadija. mbaa ko kàlla ngeen mbay Demba xëy mbay Demba. lakir mbay Demba mbay Demba yaay booy. Cheikh Déggalaw Seck la ne walay sa maam kay na nguram. say bëgg na ñu ni taxaw. yaay borom bàjjenu Faris waay yaay borom bàjjen yi. dañu ne ay bàjjenam. Cheikh Baye Seck la ni woowee sa maam. Badara Seck la ni woowee sa maam. Yaayu biir Mbaye Demba Mbaye Demba yaay booy yaay seetub Cheikh Béthio Thioune Seck Gaïndé Bourane yi kenn may yoon bi yoon bi sow demal laay ma ne Anta Diop seeni laay ne Anta Diop laay ku mu waajal nga jël fee ku la waajal madam Samba ku la waajal laay ku mu waajal nga jël fee ku la waajal laay ko waajal laay ma waajal

waaw ma doom ni mu taxaw ma nga dal sama doom toogee ba tey jógul yow xam nga ne yow sa wàllu àndul baax soo laaj yow ñu nekk ak sa maam yàlla la mun di jëriñ barke yonent bi. macha sunu doom dafa solo ba ñëw ñu ne koom kan nga am nga kër baay. tubaab fakkal la surtout chef de jalaw sekk bi gay na dafay si. am nga bajan waaye ba tere la ñu mën a fekk surtout Cheikh Mbaye Seck baa ngi doon toog Ngiro Mbaye Demba Xol Mbaye Demba Latir Mbaye Demba Mbaye Demba yaay boole. Demba jaay tool waaye bu jaay tool mu jënd boole ko sax ñu ne bokk ak Allah ji Penda xaar yàlla ma ca bopp coom waaye Cheikh Mbaye Seck Fatou nekk ak Cheikh Wala Hamdan liman dahaila duwaye wa fadala liman dahawu bi sala la fiyama yawmal qiyamah sa maam nag mi nga xamante ni nag Cheikh na Cheikh Fat boo ko seexal moo ne woon atuuful bi bay ci naañi wala si naw ma woo kama fanta ba dal xaw ma fi sini wala jëriñ waaw boo ñëwee kuy la fay yaay tëjub Cheikh du doomi Cheikh bayte boo am seexal nañ ko waaye nag maam doo am seexal nañ ko yaay doo am seexal nañ ko te yaay kenn doy ku dul Cheikh de Cheikh Fall mu liggéey Cheikh Abdourahmane mu juma men Fadel ak Maadu taaliban mu tar gànnaar am nañ maam yaram nu war a ñu jaxal sa maam nu lekk bu nu naan bu kenn du xam nu ko doy jëf jëf